waa kon gars ngi ci toog mooy promoteur bi waaye léegi nag ki toog moom defe naa kenn du ko présenté Sénégalais yi wala addina bi man l'international laa ko tuddee léegi wulli borom reefan borom bawol waaw ndeysaan borom dëkk bi maa ngi lay bëgg di la ziar say weer nag ñuul na de macha allah. Babacar yaa baax yaa gore. kenn du yow. maa ngi sant yàlla sunu borom bu baax di nuyu Seydina Mohamed di sant sama sëriñ sëñ Modou Xabaan Mbacke. di sant waa Réfat sama véeri aussi. maa ngi sant sëñ Muntaxa. Mbacke waaw Mbacke. sëñ waaw moom ma ko jox. maa ngi sant sëñ Muntaxa ci magal gi la ma ko jox. maa ngi sant sëñ Muntaxa baax di sant sëñ Muntaxa mi nga xam ne mun Muntaxa mooy maamam muy sëñ Muntaxa mu sëñ Seex Gaynde Fatma di setu sëñ taxa moom tam bëgg ma lool ci magal gi mu yóbbu ma résidence mu Rasuul jox ma kilimat climatiseur may def lu ma neex li neexul. waaye neex ba dàq neex yow daal yaa wóor. xalifa général ma. waaw si tam ma sëñ Muntaxa. waaw li waaye li neexul. neex na waaye. di sant Cheikh Ibrahima Keita loolu waa d'Afrique. loolu di ko ziar. maa ngi koy ziar bu baax xalif général suñu Keita di ma ñaanal di ma. boqal loolu Masila Joob maa ngi lay sant. Masila. Joob moo baax moo gore. bàyyi jiiri léegi léegi. Abdallah may sa waali jon Kara Mbodj international. Jamil Sam. man liiru jaan loolu tax mu bëgg daw. daa bëgg a daw ku la ne itam. mais pourquoi ñëw. ah da ngaa xam lu ko empêché géej waaye daa a sori. suba ba léegi ñu ngi koy woo jëlu téléphone. loolu day tappale. da nga jàpp ne da tappale lay def mag muy tappale baaxut xale sama war tappale ay mag. wuli liiru day tappale. jël avance lekk xaalis dem Gambie def signature. noos noos. di gërëm waa Gambie dina moori waaye xos xaj jatu sow. moo baax moo gore. xadi jatu liiru li ko tiitloo noo dem ci hôtel ba xadi jatu ànd ak man borom waaye xos ñu dem BMG. ñoom njool ñoom Matar Seen ñëpp ànd ak man waa waa BMG mais gëm gëm ànd man. mu signature ko tiital. loolu ko dax Abdou Dramé moo baax moo gore Babacar. Abdou Dramé ñu ngi koy nuyu. Abdou xam nga ko. waaw bu xam nga ko dëggantaan. ah xam naa ko ak gaaw ci maye xaalis. ah gisee automatique la mbaadu. il moo raw ci man de gam yooyu moom dañu ma jaaxal. donc du doo gaaw Abdou Dramé da wax Abdou Bara ci Dramé mu jox la xaalis bu bari moo baax moo gën ak Jibal Touré borom Angleterre Jibal Touré kenn du moom. keroog ab takk la du jox. <laughs> bu bëri sax. waaye nag Gambie lii ma jaaxal seen xaay boo ko boo ko jëkkoo day <laughs> ñu may ko. <laughs> saako xaay tabaati ma jëkk ko muy cent vingt cinq mille. tabaati ma jox saako man wu am naa xaay. tikki mooy jëkk ko waa li neexul nag. neex na ba xaaral ma ci jam te ñëw. le promoteur jeune promoteur ak a loq njur nag kii Sénégal xamuñu ko maa ko xam maa ngi lay nuyu di la borom borom Gambia borom Sénégal. waaw ni nga ma xamee noonu laa la xamee maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay. Uh-huh. di nuyu ñi fi teew yëpp. Uh-huh. di jégalu ci tardement bi. avant tout maa ngi lay ziar. yow waa Leewtoo di nuyu DTV point com fi ñu nekk nii. Lamine ak caméraman képp ku fi teew di nuyu waa Wasaare. di nuyu di nuyu sa caméraman muy yàgg. di nuyu Ndeye Kumba. borom Leewtoo point net maa ngi koy ziar baax a baax a baax. borom xalima gu ñaaw gi ah. di nuyu Père Sow Fall di nuyu Mor mi nga xam ne moo fi teewal Assis. tey jotaay bi di ko waral mooy. gis nga combat bi ñu doon taxawal muy diggante Franc ak Bébé Saloum. waroon tamit confirmer wulli ak Lirou Diane pour la quinze. décembre Gambie. loolu moo waraloon jotaay bi. man li ma lay laaj mooy da nga indi laay Pythagore ñàkk jëriñu daaw lu jiit loolu sa bàyyi ma ñun góor soog nga njëkk yóbbu ca ndar saison ba jeex nga indi laay Pythagore ñàkk Zal Bawol brise de mer numéro 2. mu mel ni jam dañu seetlu que ne at mu ñëw rek wala saison bu ubbi day gën a yokk ni niveau lan moo ne sa ginnaaw. waaw Babacar li nga wax dafa am solo tey ñun dañu yàgg ci làmb nekk ci di góor góorgóorlu ay jeunes lañ am nañ leneen luñ mënoon a def lu dul tëgg kon bu ñëwee ni tamit dañuy tëgg làmbu dañ ci war di wane suñu bopp ndax tey wax dëgg yàlla boo ñëwee ci mbir jàpp sa bopp ne da nga war a des gannaaw rek tout le temps da ngay des gannaaw waaye tout le temps tamit boo bëggee wane ne man ci kanam laa bëgg a dem rek da war di teg tànk looy jëmale ci kanam biñ ñëwee sunu première journée bàyyi ma njoon góor soog lañ indi daam seen visa wulli ñu ne déet na waa ñu jël yóbbu ko ci raison kenn ñemewul def loolu ñu def ko ñu ne fii lay yem benn na yoon la koy def dootu ko ñu ñëwaat ne laay Pythagore brise de mer Saal Bawol wulli ak Big Pato mu nekk combat boo xam ne saison bi ñu génn bokk na ci combat yi ëppoon coow ci senegal kon nag bu ñu jógee ci lu mel noonu ñu ne déet na waaye ñu dem songu roi des arènes bi mm-hmm. boole koog Baye Mandione comme ni ma koy waxee rek prouver yomb na mm-hmm. waaye prouver si diggante ñaar réew moo jafe te yàlla dimbale ñu ay ndaw lañ amaguñu mënaguñu ñu ngi jéem waaye ñu ngi koy def. ndax tey boo demee Gambie nga dem jël fa seen roi des arènes boole koog Baye Mandione mu nekk lamb ju rëy ñu ne waaye ñu ne nag. ku fóotal mbëtt roccel bar roccel bar Gambie def nañ fa affaire ba ñu koy coow Sénégal tamit dinañ indi combat boo xam ne nii wax dëgg yàlla képp koy amateur dina ci gis boppam ndax ñun si stade bi la ñuy toog di seetaan làmb amateur yi boo fi indee combat bu ndaw bu ñu la ko rusee wax tamit wala combat bu neexul si kaw tribune bi la ñuy toog naan cam lii du làmb kon tamit lépp looy def nga def lu am solo moo ko gën liñ naan bëri le tuuti la te barke la moo ko gën Franc ak Bébé Saloum Franc nekk na mbër moo xam ne nii bi mu takkee ngeen ba tey déggagul mu ñor Bébé Saloum nekk champion bu mag comme ni nga koy waxee daan ay champion ci làmb ji am fu mu bëgg a dem. ne nag Franc mi comme dafa nekk ci yoon dama koy jël fere ne ko combat bi nekkoon combat boo xam ne ñun ci ñu ko bëggoon bëri na ñun tamit ñu fexe dugal suñu loxo jéem ba yàlla def mu taxaw di ci remercier nag yéen ndax wax dëgg yàlla tey danañu téye micro de waaye su ma yeboon ne jam production ngeen bokk yow Lamine Seck bu Lutte TV xam nga. ñoom gaa yëpp di ci jàpp jàpp ci liggéey bi bu am solo ndax bu ñu demee ba mën a réussir lii rek loolu daf ci bokk. am na solo waaw loolu daal Babacar moo waral ñu indi Franc ak Bébé may mujj ak yow indi nga Franc Bébé Saloum te yaa ko wax ko fóotoon ba trop ci bar kon man nañoo xaar jamay keneen tam ci saison bi fii Sénégal mu indi yeneen combat et puis tam bëggoon nañoo xam datu komba bi kañ la fii. non Babacar ñun moom wax dëgg yàlla. comme li may wax rek làmb moom wax dëgg ñu ngi ñaan nag yàlla dañu kàttanal ñu ci gën am tànki kanam lu ñu defoon daaw benn journée bu nekk boo xoolee suñu année yëpp journée bu nekk trois grands combats la ñuy jël boole ko benn bis. te ki ci kattanu yàlla Franc Bébé Saloum ñu ngi ciy waaj lu doy waar loo xam ne bu buñ ci yeggee képp kuy amateur wala kuy dund lamb di nga xam ne lii lamb la te liggéey nañ ci. Mm-hmm. lamb ji nag wax dëgg yàlla si tub jéegul gars ñu ngi commencé jënd licence yi bu ñu ubbee ba jël date rek dinañ xool date bu ñu koy def bëgg nañ daal au plus tard du génn mois de mars février. waaw bëgg bëgg naa ndax ñu ngi jëm Gambie nii décembre. Mm-hmm. bu ñu jógee Gambie décembre <coughs> ci leneen. Mm-hmm. waaw ndax lamb ji moom comme léegi lu ñu ko waxee promoteur bu dox si diggante Sénégal ak Gambie dañ ko bëgg a nekk. dàll yi Moussa Ngom suñu ñu sol ko bu ñu jógee Gambie ñëw Sénégal bu ñu paree dañuy delluwaat Gambie nañu gars yi xaar ñaari réew yëpp nañ xam ne ñun si ñoom lañ bokk ndax dëkk bu fa sa yaay juddoo fa nga waaw di nuyu nag ñi nga xam ni tey Babacar feccam liir bu denxee nday ja jàpp ca mbaggee wala baaji mhm. ni ñu koy waxee di nuyu sama papa père ba maa ngi koy nuyu di nayu njabootam di nuyu doomam Mansour ba njaboot gi yëpp ndax wax dëgg yàlla lépp lu jam production man moom la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk wér yokk ko kattan gën ko dooleel gën ko sàmm sàmm njabootam di nuyu njabootam gi yëpp ñoom may ñoom kodde ñoom mbenn bàyyi ma kenn soxna maami dara maa ngi koy ziar bu baax di nuyu staff bi yëpp gaa yi fay toog ñoom Gora ñoom Papa Gueye sëñ Dame Souleymane bàyyiwuma kenn képp ku fay fréquente rek maa ngi lay nuyu di la ziar Babacar di dem ba Gambie tamit di nuyu staffu Jam Production foofu ñoom Gils di nuyu samay partenaire du man samay partenaire sama papa Ndiol Dieng borom BMG maa ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu sama mag sama xarit sama jigéen Xadijatu Sow borom White House ndax nee na ma loo jëlee Sénégal indi ko même boo ñëwul tey nga gis ko war a jógee Sénégal war a ñëw Gambie yebal ko mu ñëw ma jox ko mu tëdd gratuit jox ko mu lekk gratuit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax borom hôtel White House di ko jox wàcc waayam di nuyu sama xarit comme ni nga ko waxee Abdou Dramé xaritu wulli xaritu ñëpp mm-hmm. kenn du moom maa ngi koy jaar bu baax borom États-Unis di sama xarit laay bu def mm-hmm. xam ne sama xarit la mm-hmm. tey Babacar lépp lu may sol moom ma koy jox ku ma fa yebal mu solal la yebal la góoma fa nag laay bu def en direct Babacar a ngi nii jox ko muy sol ak caméraman ak ñuy liggéey yàgg maar ak Ndey Kumba Fall benn problème maa ngi koy nuyu baax di nuyu waa Sandaga di wax ne képp kuy jaay yére Sandaga du sa morom di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Gambie nag. mu des Xaadim Mbeng Xaadim Mbeng it fonkal la de ca Sandaga. waaw walaay du moromam rak rakkulaay sax rakkulaay sax du moromu Xaadim Mbeng maa ngi koy nuyu. daal benn ponkal laa ci xam benn ponk Xaadim Balla. moom maa ngi koy ziar bu baax a baax muy baram man faw say électronique sama xarit sama grand maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel ci màggal gi ñu jógee di ñaan ci réew mi jàmm Babacar di ko ñaan ci bitim réew di la nuyu di nayu gaa yëpp jaajëf yaay tëj nag xam naa nag la nga lam ñu waxoon ca Kébémer. yàlla la macha allah macha allah ca laal bam bu ku ko woom wooyu la. ah kabar naa yàlla alhamdulilah sant naa yàlla. gërëm naa yàlla santaat naa ko bu baax a baax. Babacar vidéo bi ñoo ko defoon. yàlla sunu borom dikk na ak Lamine yéen aussi seen xol rafet. ñu def ko ak yéene. yàlla may ma ndam ca big pato. kon yàlla may ma ko Gambie ca champion bu mu mag ba kon yàlla alhamdulilahi rabbil alamin hmm. sant naa bu baax mënu ma laa fay hmm. di ñaan nag nga yokk succès bi ah. yokk parce que ñëpp Babacar Abdou Dramé Dramé bu mag boobu ne Angleterre baax ci man gore nekk Gambie lii neexul oh États-Unis damaa juum baal ma Abdou Abdou Dramé nekk États-Unis Amérique xam nga Gambie ñu bare doon nag fee moo Angleterre ñoom balakaat ñooñu ñu ñoo ne Angleterre mais Abdou Dramé moo ne États-Unis maa ngi koy gërëm bu baax Abdou Dramé kii nag mbër boobu bëri wax. kan ko da koo waroon këccëb. war ah, képp la moom man. këccëb daa waroon Abdou Dramé. aywa wuli yow mi wax loolu. Abdou Dramé da koo jàppale di ko jàppale États-Unis këccëb da koo wor. Hmm. man nag vraiment woo na ma ne ma wulli léegi yaay sama mber man nag Abdou du ma la wor parce que wor baaxul. di gërëm. Jamil Sam Bobo joob waa Espagne. Kumba Mbay maa ngi koy gërëm bu ne Espagne Kumba Mbay sa sama jigéen. mais sa adversaire bi dégg naa am na oto de liiru. Magat Magi Mboy xam nga aussi liiru li ma war a tax mu ñëw bëri si. yow amu ko woon. xamoon nan gaz mu tudd sax tur bi benn. benn gaz gaz benn gaz da jox oto ba benn mère gaz. waaye nag am na oto loo ci mën a am na oto de. mais kon nag kon nag Abdou Dramé maa ngi lay lancer appel solennellement Abdou. sëñ Mountakha mi nga xam ne itam mooy xalifa général di ma lool sëñ Muntaxa mu ndaw mi nga xam ne mooy setam sëñ Muntaxa jur bàyyam muy sëñ Seex Gaynde Fatma sëñ Muntaxa dama di bëgg naa oto Jamil Sam bëgg naa oto Kara Mbooj bëgg naa oto may laaj après Sow mais jam Xadijatu Sow na may oto. voilà BMD. BMD Njool Dieng. Njool ngir yàlla ma ne ma oto dama leen koy ñaan waa Gambie ba BMD ñoom Njool Dieng. yaa yor yaa oto Gambie. waaw liiru jaan nag vraiment Babacar. Hmm. dafa war a góor ñoo bëreel ak Sëñ Tuubaa. man nag pare naa même bu dul liiru jaan pare naa pour kat gi pay naa pour bëre mbër bu ne Gambie. pare naa pour bëre. Njool Dieng maa ngi di gërëm yéen waa Gambie gépp waaye xos xarijatu sow yéen a baax yéen a gore. kontaan naa ci yéen bu baax. Franc ne Franc kon nag gaa yéen ñuy suivre Franc ngi nii di woote depuis États-Unis d'Amérique Franc loo

Mm-hmm. kon yaa ngi yaa ngi États-Unis ba kañ. ba fan yii ñaar laaj naa Mor ku dàq bëre ku ëpp doole yàgg yàgg bébé. dégg nga. ku dàq waaw. Ah, ku ëpp doole. loolu daal dañ ko bàyyi hmm. kon am na solo wa moom sax na moom sax woyu ma moom sax na mu ngi lay waaj a fekk États-Unis de. Ah? mu ngi lay waaj a su États-Unis yaakaar naa de. waaw daa bëgg ngeen def avant première bi foofu xam naa. dégg nga. ngeen nattantey doole foofu ba pare doo ñëw fii ci ci arène bi. waaw bu hmm. am na solo kontaan naa ci yow. yàlla na yàlla nangu ñaan. Sénégal waay Franc. waaw sa jigéen tam a ngi toog Ndeye Kumba Fall sa xarit Ndeye Kumba. waaw mu ngi nii toog. sama waaw waaw waaw. jaajëf. kon nag gars yi <clears throat> yéen ñuy suivre affaire bi noonu la demee dégg ngeen li Saourou Fall wax dégg ngeen li Mor wax Franc itam depuis États-Unis dugg na wax na bébé saalum li mu ko wax olof nag nee na benn lay pàq la be bébé dina wax jamaïcain itam moom moo tëgg laam ji dégg ngeen li mu wax wulli dégg ngeen li mu wax wulli kon xama lu ñuy def jox sénégalais yi dig daje ci kàttanu yàlla ci fan yu néew mais di kontaan tamit vraiment comme ni ma ko waxoon ci ubbi bi rek ci toog fii parce que Babacar moom moog Lutte TV defe naa ne lu du du tey démb la xam nga kon di ñaan yàlla rek Lutte TV wasaare to ak. ñëpp képp kuy liggéey rek la ngay liggéey yàlla si yàlla teg loxo ba mu yokk ba nga yëg ci sa bopp barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm sama jigéen nday Kumba Fall borom xalima gi di ko nuyu bu baax a baax yàgg maar mi nga xam ne nii moom kenn du moom taalibi Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou yàgg bëggee naa la bu baax a baax a baax waaw non loolu jam na ci sa xol seet xam ne <laughs> naa leen jukkal yàlla baax seen combat la def leen ko seen moomelu bopp ñu liggéey ci bis bi làmb jëm kanam ñu xam ne ñun daal ay ndaw lañ. am na solo loolu leer na mais Lamine Seck itam Lutte TV mention spéciale yow yàlla na sa jàmm yàgg kenn du Mouhamed Dieng jox na ma léegi costume bu rafet a rafet macha allah.